ñaan saas. am de très trois. Lac de Guiers lay ñaan saas. nee na Lac de Guiers nee naa la ma bay. waaw yow jàpp si. waaw non ah. waaye mën naa jaar feneen moom it ba ci kanam. ah du dara. ah nee na Lac de Guiers woo ma jaar feneen. waaw moom moo ma jaar feneen. Lac de Guiers day maye saas. waaw non mais moom nag moom nee na xale bu yaru bu ne ma may la saas. te xam naa ne bu yaru waaw bu yaru moom bu yaru la <laughs> day saas. waaw baax na. liiru ku bëgg a doon champion. dañ koy jur ayca nuyu naa la Prince. a naa la. daa mel ni ak Adama Diarra Sanda. waaw. ñu ngi woon ci diggante ak waa man Bargny laa am amalu dul sama ndey sama baay samay juróom-ñaari maam. Bargny lañ dëkk. te Bargny ku ma fa bokkalul dëkkuwoo fa. Ah? loolu la yàlla dogal. mais daa mel de. man déggoo man boo ma xoolee rek bari ñi ngay gis sama kanam. mais xale yi nag xale yi bari ñi lamb lañ am yow boo bëggee am naa man maay bari ñi bul bind coins dugal la yàlla dogal. mais xale gisoo fi ma toog nii kuréel laay fàttali. waaw parce que man fii laa mos a jël. waaw arène nationale fii rek laa tàmm. waaw fii lay touché. waaw masaba miin na la. waaw. tey lan la ñuy xaar bi yàgg na dëpp rek la cause. boobu ba di xaar Quench lan la. yéen xam ngeen ji daa am nii nga am ndey ak ah? kese moo si am. kay daa am waxaat ko. billahi daa am nii ndey ak man man may toog di si làmb loolu amateur yi sax war ñu te bu ñu toogee fii ba ma jël gaal yi ba si gaal yi tukki. am nga visa yéen uyu ma. da ngay damay bàyyi visa bi sax si gaal yi. ah. te bu boobaa bu kenn wax na ñëpp nopp. mais lan mooy problème bi lan la adversaire yi lay tàmbal nga topp la. xam nga moo xam ne daa taxaw ne lii amateur yi bëgg moom bëgg na xam nga kooku taamul moo ne man gis na ne damaa yor naa may saa ma dem song nga naka may ma chance mais sa digganteeg Lac de Guiers neexut dama lay wax li amateur yi bëgg sa digganteeg Franc moom la gars yi di waxtaane Quench sa digganteeg Franc la gars yi di waxtaane loo ci wax. waaw dem leen laajte rek bu mu moom. dama ñu may franc laaj franc ba pare rek. franc bëggee. déggoo ma la ma ne moom nañ ko laaj kon comme moom moo bañoon moo ne moo ma raw yaa may dégg koo ne moo la bu pare yéenu la nga ne yaa raw gën la seer kese ëpp la nga ne yaa raw fan nga ko teg. parce que bëri na ko bëri nañu mbobat ma bëri loo ko 20 minutes ba mu bàyyi yéenu ko yaa may dégg deuxième mooy que maa ko ëpp kese. troisième bi maa ko ëpp mbooloo quatrième bi maa ko est-ce que dégg nga li ma te bu pare man topp ma si benn mbër bu mag pour bu may génne di ma may bëri. ah voilà noonu la demee. mais eh, toppoo benn mbër man sama yoon dama kaa xalal sama bopp. waaw ah. métti na yoon bu métti nga jaar déggoo ma de dama nga xam nga yéen ñaar tàkkusaan bu neex la arène nationale fii. waaye amateurs yi ñoo koy wax mais dama na kon nga moom nee na moo ma raw. mais est-ce que du ngeen li ngeen laalee tax. da nga ma ne kon nga nee na moo raw moom na jëli ji am seen wala Sa Thiès yaa may dégg wala. Ama Baldé moom ñooñu la teg ba na dem jëli ñooñu. waaye lu yàgg yàgg di ko fekk. man ñooñu yeggaguma si ñoom damay ut beneen combat pour man ñu daan laale moo tax. waaw parce dañ na góor boo ko laaj yëpp. da ngay ñam ba pare. te moom ñam na ma xam na la laay la laay nii la mos a demee bi ñuy bëre ñëpp dañ na moo man. ah waaw. mais nag sax ni ma gàtt ci diggante bi de. boobu la gën a rëy. Franc léegi la am boobu la gën a. boobu la gën a rëy la a pataas ah, laay wax ma fooyee bu bëri daan dina koo ñemee dama ko fooyee bu bëri yéen a ko mu am lépp li mu ah, ne si boppam yëpp na leen moom mooy daan sa ma sañoon xam nga gan nga may wax waxu Lac de Guiers dama seet doyal. mais man seet damaa gis ni ko ñemee gisuma mbër mu commencé ñemee noonu. waaw ah, xam nga daa am fuñ jaar la yéem mais man yéemu ma man déggoo ma mais xam la laa bëgg. moo wax ma waxul la mais seen takkusaan arène damaa doyal si waxu Franc mais bi laay diggéen bëri doo sama papa sax dafa doyal si Franc déggoo ma de yow daal lan la ngay def moo la ñor fi kese moo xew la déggee boo imagine nga ñu ne Coense Coense la déggee oh da ngay dugg histoire billaay walaay te la déggee damay mbapata moom force mu neex mu naari nga day mbabat. koy xale bu la dëgg xale bu ko daan ay wala dëgg ni gars yi ay ngeen maam bu ma ko amee. si la dëgg ne kon waa bëri ñi ma gisee dinañ ñu bisee. booy bu ma jàppee sa xarit jaar ci mënu ci dara. bu ma jàppee si ngeen bay bu ma jàppee ngeen bu la dëgg dama ne waa bëri ñi ne Espagne dinañ ñu kër si dañuy xam ne man loolu laa leen tàmmal. la déggee dañ ma jàpp si gëñoo yi. oh. ma nga fuwe si ci la déggee. lan la la dee ci la déggee daan neexa daan wala da ngaa gis si. dafa si daan dal sa man dama lay bëreloo ba nga bàyyi ba jeexal tak ba jaabale daan man du ma bëree léegi fi mu nekk nii bëree du ma ay 5 minutes bëree dama lay yóbbu 15 minutes fin ba sa sa 15e minute ba balaa lay jàppee day fekk pare nga ma jàppale sànni te la dëgër gis naa bi muy bëree da mu wane coow. day ma ne gis naa bi muy bëree si da mu wane coow. waaw sonn na foofu waaw. ah loolu jàng nga ko ci foofu jàng nga ko ay la dëgër bu ñu mu wan ma coono. bu ñu mu wan ma coono. waaw la ah, daal maa ñaan saa si respect si respect. mais daal comme jéggi nga faral léegi non du ah, yow bu ma dimbalee Franc te laa ko neex ko ma xam ne nga jaar nii ma gis maa ngi zone yi ak zone yi zone yi ambassadeur Franc jaar de waa parcelle ngeen war a daje mo non sax rek ko pie maa suba teeram sol zone noire waaw léegi laa di zone noire dama ngay prendre yóbbu si yoon ndax lan warul sol zone si ñoom yaa ko fi andi. foofu ma pelente leen. ay coach. la mu nga arène nationale. Ah, bilaay na ma naa. na ma ci nam kon namu sa bopp. bilaay man damaa nam ma gaaw taral sama yaay quoi bilaay. yóbbu sama maam màgg balaa màgget. lamb yi nañ ma dimbali ma yóbbu sama ay coach. sama maam màgg bu pare. ay coach mooy loolu la léegi. bilaay dëgg borom Bargny. Bargny rek ñu ngi nii yow bul bul bul xalaat sax Bargny Koyen sa rek yaa nga Bargny. masa ba tas nga naan doomu seede sa xam-xam jee tak nga tëdd nelaw. jërëjëf warul sol jaune noir. supporter yeneen i mbëri waruñu fi simbi yére di nga wëndeel loolu samay fan. indi sama yëf ñoom ma pelente leen. ay Koyen. waaw noonu la mu ngi arène nationale. bi laay na ma dama ci nam ko nam sa bopp billahi man dama nam ma gaaw teral sama yaay quoi billahi ah? yóbbu sama maam màgg balaa màgget làmb yi dañ ma dimbali yóbbu sama ma de ay coins billahi wallahi ay yóbbu sama yaay ma yóbbu sama maam màgg bu pare ay coins mooy loolu lébu yi billahi dëgg la de borom Bargny. Bargny rek ñu ngi nii. yow bul bul bul xalaat sax Bargny xalaatal Koyens rek yaa nga Bargny. masaba tas nga naan doomu seede sa xam-xam jee taj nga tëdd nelaw. jërëjëf Koyens jaajëf.